asalaamaaleykum moo suñu mbokk internet yi saa suñu ni leen ko tàmmalee di defee di leen wan ay ndaanaan yoo xamante ni car macha ay ndaw lañ mais encadrement bu am solo tey ñu dalal ci ndaanaan bi ñuy wax Akassa dëkk ca kaw lax nangan Akassa bëgg nañ la laaj say jaar-jaar sa début musical ba fi nga toll tey ji na nga def Akassa ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay euh, mon ami mon frère di nuyu Sénégal gi yépp di nuyu kilifa aada yi ak kilifa diine yi. di nuyu sunu yaay ak sunu papa yi waaye di jël nuyoo bi nag yóbbu ko Kaolack gi nga xam ne fa la ñu cosaanoo fa la ñu dëkk juddoo fa yaroo fa tey ba yàlla dogal tey ñu dugg ci métier mii di musique di la xamal ne daal ñu ngi nuyu ñëpp di bëgg ñëpp bàyyi wunu kenn jaajëf. tey soo ñu doon wax kan mooy Akassa. Hmm. fan la débuté wu ba tey yàlla def ko mu doon musicien boo xamante ni car macha allah yaa ngi xeex sa territoire kan mooy Akassa. waaw sama biir wax yaa yaa ngi dégg ma naan sama lépp Kaolack la. sama ndorte li ma mën ci aar ba te yàlla dogal ma dugg ci musique bi lépp Kaolack la lu ma mën ci aar rek Kaolack la ndax bi may wax yaa ngi dégg ma maa ngi nuyu Kaolack sama réew sama dëkk ma demee sama xam-xam ci lii may def daal lépp Kaolack la. tey musicien xam nañ ne da bëri ay jaar-jaar. Mhm. su ma la doon laaj tey lan moo la dugal ci musique dëgg dëgg dëgg tax nga bëgg musique. Mhm. ba tey nga nekk ci. Mhm. kan nga may wax. waaw musique nag euh, li tax ma bëgg ko dafa bari ginnaaw dogal bi ndax suñu borom la tey mën ngaa bëgg li yàlla nar leneen bu boobaa loo bëgg bëgg ci ci loolu yàlla bëgg ngay dem parce que yàlla mooy dogal mais ginnaaw bi ñu bëggee musique euh, yàlla jàpp ñu ci euh, li tax ñu bëgg musique bari na ndax bari na ñoo xamante nii tey woy nañ loo xamante ni mën na laa tax a bëgg musique bari na ñoo xamante ni gis nga leen ci musique ba tey ah, nga nga nga fan leen bëgg leen ci seen qualité ñoom bi ñuy doxee ba tax nga bëgg musique maanaam bu ma la limalee tey ñi tax ma bëgg musique dafay bari dafay bari parce que man dama bari ñoo xamante ni dama leen di déglu dafa bari ñoo xamante ni dama leen bëgg dafa bari xamante ni dama leen fan mais en tout cas daal li jiitu mooy amour bëgg-bëgg bi waaw bokk na li ma gën a li ma ci musique quoi. ma déglu. nga génne benn son bu tudd mm-hmm. suñu borom mm-hmm. suñu borom di son bu doy waar mm-hmm. musicalement ba fam nekk sax du yëfi xale daal dëgg la ma xam ne ay ponkal dëgg ñu ngi sa ginnaaw di la boot ak bu bees tàq daal lañ sang tegal ñu ko daal ñan ñoo defar son bi waaw jërëjërë studio jërëjërë TV ñoom ñoo defar son bi ñoo ko produit macha allah li nga wax noonu dafa am son bi dafa am qualité xam nga li ëpp solo mooy ah bari na magu artistes yoo xam ne dañ may ñaanal bay tuur xéewal ci qualité musique ci qualité voix ci parole yu riche parce que tellement surtout loolu waaw surtout loolu parce que parce que tey man c'est-à-dire que su hmm. ma ne lii du mbindum xale hmm. yow yaay bindal sa bopp wala dañ lay bindal non jërë-jërë lépp jërë-jërë la rek waaw lépp jërë-jërë la dañ ne dañ ne dañ ne dañ ne euh, kuy luy naaw a neex a sànni. exactement waaw effectivement mën nañ la jox way na la way ko te doo ko doo ko doo ko way ni nga ko war a wayee. te it idée bi yëpp macha allah nekk fi. te li des ci ñun moo ëpp sax li génn mais dadi euh, euh, man xam naa ne ah, ah, li ma def oh, loo beneen affaire la. man dafa ma si déglu. Hmm. mooy nit ñi ngi yàqante. Hmm. di defante lu bon. Mhm. mu jiitu ci musiciens yi. Mhm. parce que dañuy wane souvent que dañu bëggante. Mhm. mais au fond. soo leen fekkee programme wala lu demee noonu. ñoom mën nañ la fu lekk nii dañu bëggante. loolu nan nga koy dundee en tant que artiste. waaw loolu moom du jóg ci showbiz bi bëgg naa la nit mën mais nit mën na wax ak yow ba jooy sax te bëggu la. loolu dafa am dafa am nit ñoo xam ne dañu dañu lëndëm dañu lëndëm mais loolu du showbiz kese. si àdduna bi yëpp am na doomu aadama yoo xam ne ñoom mënuñ dund dëgg buñ dundee dëgg rek feebar am na doomu aadama yoo xam ne tamit mënuñ dund ah, naa feq bu ñu dundee leneen rek dañuy feebar mais loolu nag jikko la nit mën na yor alal doon naa feq nit mën na yor nit mën na ñàkk doon naa feq ça veut que loolu dafa doon loo xamante ni euh, loo jëmmat ci sa yaram la soo amee loolu ngay dund soo ñàkkee loolu ngay dund mais en tout cas daal ay nit bu nu bokkee métier li ëpp solo mooy lépp lu ñuy waxante mu doon dëgg maa ngi profité xam nga ne ku mel ne sunu bàyyi coon balaa ko sekk di ko di ko jaale euh, di ñaan yàlla xare ko àjjana mais mais mais mais jëfam ci musique moo ñàkk sax ah waaw ak ay wayam ci musique surtout surtout li mu doon way sax parce que loolu dafa importance ambiance bi am na solo bége bi am na solo wax li neex sa dëkk am na solo wax lu neex xale yi am na solo mais tamit des fois bu tàngee ba ci yàgg da leen di delloo message euh, xamal na leen ne leen dëgg mooy dëgg mooy njëkk mooy mujj comme ni ko sunu bàyyi coon balaa ko sekk doon defee mais en tout cas dëgg mooy njëkk dëgg mooy mujj tey euh, nit looy wax ak moom rek fexeel ba loolu di ko nga koy def waaw looy wax ak moom rek na nga koy def ndax dëgg daal amul lenn lu ko féete kaw moo tax sama mbokk yi artistes yi maa ngi bëgg luñ gën a bëggante rek doyul ndax àdduna amul solo. exactement àdduna amul solo te loo gis tey jeex. Hmm. ñu taxawaat. ci sa plan international c'est-à-dire dégg naa ne am nga ay projet yu doy waar Covid bi moo la téye mm. tënk lu bari lu mm. yow kese la tënk mën naa ne yu bëri effectivement baa yaa ngi développé waat euh, contrat yi et tout ça ak mm. sa staff ak si loxoy kan nga nekk waa wax naa la ko sànq maa ngi ci loxoy jërëjërë TV Euh, jërëjërë studio euh, yaa ngi gis léegi. yaa ngi gis léegi Safia euh, su sumu ménagère Omar saw nga gis taxawaay bu rafet bi muy taxaw ci liggéey bi macha allah doon jigéen ju man góor nag macha allah sawar ci yëf ñu ngi nekk ci ay projet yoo xam ne d'ailleurs waroon nañu voyage sax mais Covid bi moo tax lu bari arrêté comme liñ demoon année passée demoon nañ tournée. Euh, euh, ñu ngi woon Allemagne. Euh, ci benn festival bu mag a mag a mag a mag a mag ca Berlin. ak bàkkan jëre waroon nañ démarche mais Covid bi. moo tax ñu ñu stop quoi. kon daal ni ma déggee say wax. Mm-hmm. Sofia ku la taxawu la. Mm-hmm. te aussi tamit nit la quoi. Mm-hmm. li ñaan. ndaw nag. soo duggee ci bunt war a dem di mm-hmm. nga bëgg ñu bëri dina la bëgg a téye mm-hmm. xëcc la naan la diw nii mm-hmm. diw naa mais fi nga téye sa staff ak ñoom fi ñu la dëj parce que gis naa si ñoom loo xamante ni franchement parler dama bëgg nga taxaw wax si ñoom parce que def am na lu ñu def si yow am na lu ñu def si yow lu bëri noo xam nga sànq bi nga ñëwee ci bërëb bi yow yaa wax yow yaa ne fii beneen affaire la parce que liggéey rek moo wóor fii boo fi ñëwee da ngay liggéey amuñ détail dugguñ ci kenn waxuñ ci dara lu dul liggéey Safia dama koy xool sax moom man man waykat bi Safia moom a gën a bëgg la muy def. gis naa loolu moom dafa sawar maanaam lu mu laaj rek da koy def. Mm-hmm. te lépp jërëjërë TV. yaa ngi gis gars seen liggéey. Mm-hmm. macha allah mm-hmm. kon euh, euh, euh, li fi am daal ba am li ma la mën a waxtaal mooy fii seen secret mooy liggéey. kese seen secret mooy liggéey gis ngeen ko. mën loolu la muy def mais li ma neex ci xale bi mooy dee na macha allah xale bi préparé nañ ko yéen artistes yi nga xam ne ay jeunes talent ngeen te bëgg a dem jël leen seen bopp ngeen jox ko ñi nga xam ne dañu miin musique hmm. xam musique da ngeen bàyyi taaba taaba bi ngeen def loo xam ne lu professionnel la xolo xale bi ndaanaan la mën la li muy def aussi waxam dafa tee hmm. noo cest à gis naa fi lu doy waar daal parce que musique nekkutut ci xeew ci loolu neex na trop mais ngeen a yëkkati seen bopp jéem a xool de loin moo gën Euh, tey nag ñu lay wax nga wax joxe sa dernier moo nuyu ziar tagg sa ñi nga xam ne ñooy sa waa staff. waaw dernier mot bi mooy sant yàlla rek. julli ci Mouhamed euh, di gërëm nag ñi nga xamante ni ñoo ma taxaw waaye di ci jiital baakan Seck jëre mu ci mbéy sax yaa nga la mbaay nga xam ne ba mu jàppee ba tey bàyyiwul xaarul kenn mu ngi def li mu war a def ko wax mention spéciale euh, ndax moom. ndeysaan jàmbaar la daal chéri Mounas chéri Mounas Ndiaye Ndiaye Talla Koddu mu alaaji Doudou Ndiaye Coumba Rose xam nga maanaam maanaam maanaam baakan daal mention spéciale pour man euh, di sant nag Kaolack di saara gi mu juddoo xale yi fa nekk macha allah di ci jox ibulaay prési nga xam ne dañu ma bëgg lool waaw dañu ma bëgg lool lu ma jàpp ñu jàpp lu ma bàyyi ñu bàyyi saara di nuyu ñëpp di bëgg ñëpp di leen wax àdduna jàmm rek a fi xaj rawatina sunu senegal gi jaajëf. àdduna jàmm rek moo fi xew nii lañ koy defee di seeti ay ndaanaan ndaanaan pire ñëpp dinañ leen wan parce que xale yi mën nañoo woy pire mais dañoo làqatu di leen wax nag nii lay demee di leen wan ay ndaanaan yu bëree bëree bëri rawatina fii si Sénégal. bu leen ko doon présenté mooy Mouhamed Fall naaru sëñ Fallu xale bi nga xam ne sëñ Touba def na ko si xasida yi Maam Alaaji Maal def ko si tawsiir ko si bible bi man la daxaa jërë ngeen jëf